صل وسلم يا daa leen ko wax di daa yàgg naa leen ko wax di ngeen am da nga am taw taw fexe rek lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñun fekk nekk nekk ci liggéey xas nekk ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér a wér a wér yoo xam ne taw bi yëpp war nañ cee ñee te ngeen dund ci fàggu waaye nag dañ ko bale xaas xaas ngeen am waxuma taw feex taw feex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am. xataxan na jiis xon na bii. ishanhu muntaqilun xaniina saklaalati fardaanu xax turima gannaaw ba sëriñ bi mele ni ki jaayu wax ne yonent bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbi ajmain am na ay xarbaax am na ay muxjisaat yoo xam ne kenn mantu takk kenn mantu xam ay keemaan yi ca nekk daa di ne kallat mi daa wa kalat lamtiraa xallama nee na daxal lu muy mën a mën a mën a mën ak mën a bind ña koy bind la ñu mën a mën a bind lotu nañ ci xam ko bindkat yi yépp moo xam ñay sacon wala ñiy woy ñëpp ci am lottu nañ ci xam dëgg-dëgg keemaan yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ay mujisaatam kenn mënu koo takk da ngay wax kem la nga tolloog rek ak la nga xam rek waaye bëri daal kenn mënu ko takk gannaaw si xam ngeen ne gis nga ñim la liimaloon yépp yépp lu toll ci fukki yonentu ñëpp di ay yonentu suñu borom tegoon lan ay nattu buñ demee ba génn ca ci darja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ci génnee moo xam noo wala yanxooba wala yuusufa wala yunusa wala ibrahima wala ayuba wala Muusa wala Isa wala Daawud wala Suleymaan waaye sax mu ne mënta tudd ñëpp mu ne bi jaayi haasati rusulul kiraamu maxan kalan bi yaa i jamian maalum xolima mu dal di tënk yonente yëpp ne gàttal bi daal moo di yonente yeeg anbiya uy yëpp lépp lu ñu leen di mën a waxal di ko nettali seen histoire ñam ko amee ci darja yonente bi salaay salaam kenn mosu koo dégg bi jaayi haasati rusulul kiraamu maxan kalan bi yaa i maalum xolima tey nag mu ñëw commencé lenn ci ay muxjisaati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xat an na xay na xay gisoon na bii ëkkuk kañu soloo ko tamu yonent bi moom sax ko far tuddee ëkkuk yonent war na yonent baak moom xay na gisoon bi bii ëkkuk kañu soloo ko ba noppi yónni ko ñi ne ko lu ko tax a jooy ma ëkk guy joy loolu moom lan lañ ko def ba muy jooy te ëkk dañoo xamoon ne jamaa la yàlla joxul ko joxul xel lu muy jooy mu ne is ngir muntaxilun aji toxalu la xan ko ñu ne ko waaw jooy gi nu meloon wala lan la niroog mu ne anii na sakala kem jooyug jigéen gu yara dal alati mooy jigéen ja nga xam ne fardoanaha wéetaayam ba uxtarimaan naqarees na ko mooy xalagees na ko sallallahu alayhi wa sallam mu ngi dugg ci benn muxjisaat boo xam ne bu siiw la te mu amoon bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee baye koo màkk dem dëkk bu tedd bi di madinatul wara muy dëkk bi gën a tey ci dëkk yi xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néegam daanaka mook jàkk ji ñoo jàkkaarloo yonent bi nag biñ tabaxee jàkk ji nga xam ne tabax boo xam ne guddugut ca kaw booba doo jàkk joo xam ne jàkk ju mag la dañ faa tabax ay sorol comme nu mel nii déedéet bi loolu amee sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne bu daan xutba ci ab ëkk laraan teg ay loxoom ëkk gi nag ndeke loolu daa mel ni da ko jural bànneex mu neex ko lool ba bëggul yonent bi di ko wàcc yàkkamte na sax maanaam waxtu julli jot yonent bi ñëw taxaw ci kawam di xutba rawatina aljuma léegi nag comme jamono day dox te li amoon tey suba mën nañ koy dindi defaat fa leneen ndax jamono mooy doxee noonu jamono ji nekk yàlla dogal ñi tabax jàkk ji bar ndax ñetti escalier la woon jëmmi jàkk ji dañ koy def la ñetti escalier yonent bi ca ñetteel ba la daan taxaw di xutba ca ëkk ga waaw ci ëkk gi la daan taxaw waaye jamono Seydina Seydina Abubakarin da ngay gis ne moom ñemewutoon àgg sax sa ñetteel ba moom ci ñaareel bi rekk la daan yem léegi léeg daraan tëri alquran ba yàgg rek xel mi dem ci yonent bi salaay salaam mu commencé jooy sàppi ci nekk ci gannaaw moom it commencé jooy bu ko defee ña nekk ca marché ba dégg jooy di leen jooyle ñu it dégg jooy di leen jooyle léegi nag ëkk googu ñu defaloon ko moom yonent bi muy xutba dem nañ léegi ba taxaw nañ jàkk ji léegi taxaw nañ ko bar boo xam ne ci lay taxaw dootu taxaw ci ëkk gi ëkk gi na commencé jooy di xaaju ci biir jàkk ji di yooxu yooxu yu metti waa jàkk ji ñëpp dégg ko marché bi ñëpp dégg ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg ko yonent bi daal di jël loxoom bu tedd ba tabarke lool teg ko ci ëkk gi ëkk gi commencé mel ni ku noppi di sëqat di sëqat comme ni gune boo koy nax gune goo xam ne day jooy nga koy nax muy sëqat di méttitlu jooya nam mel noonu la mel ëkk gi di jooy jooy yu métti yonent bi la koy jooy mu ne man de li nga daan taxaw sama kaw banneex ba ma ci daan yëg léegi nag nga dem ba yàgg te taxawootu ci taxawootoo sama kaw loolu moom lay jooy moom lay métti a ah yonent bi ne ko ah loolu de faat na wax dëgg yàlla nag waaye nag mën naa laa tànnaloo ñaar comme loolu faat na pour di taxaw sa kaw di xutba loolu moom faat na parce que taxaw tabaxal nañ ma am minbar bu may xutba léegi nag leen nag mën a def nga doon garab goo xam ne da ngay sax fii ci jàkk ji su ko defee waa jàkk ji di la lekk di barkeelu sa miññet wala benn nga dem sax ca aljana bu ëllëg yowmal qiyaama ku dugg ca aljana yi rek fa tabaarakallaahu di xewlu ci yow mu ne ko tànn naa lu dul jeex ci kaw luy jeex ndeke jamaa daal yi sax bëgguñ ëkk ëkk koo xam ne jamaa daal la amul roo yonent bi ne ko tànn tànnal ñaar yi benn nga sax ci jàkk ji ñi lay lekk ci sa meññit benn nga sax ca yowmal qiyaam ca biir aljana ñu dugg aljana di lay lekk mu ne tànn naa lu jeex ci kaw luy jeex bokk yi kon adduna ku ko bëgg yaa tarde naam ab ëkk moo bëggul adduna ab ëkk moo bëggul adduna kon na xam nit na xam nit yonent bi nee ne su fekkoon ne tegu ma ko sama loxo ci jooy yam doon jooy konoon ba piccëb yàlla day jooy du nëppi waaye la ko yonent bi tànnaloo moo tax moo tax mu nëppi kon loolu moo ji saat bu yéeme la loolu la muy la muy firnde rek yonent bi lépp ko bëgg même waa màkk yi lu ñuy bon bom suñ ko di sax moom jëmmi doj yi ak kéwél yi ak till yi ñu ngi koy seedeel ak nubbootaam ñu ngi koy fat doj yi ñu ngi koy fat xam nga ba waa màkka biñ ko génnee Makka suñu borom génn euh, digal ko mu gàddaay ànd ak Sidna Abubakrin kan moo ko fat xuntuma xuntu moo ko fat te moo ne xunt du du nit amul roo waaye xunt bi ci boppam nangu naa fat jëm yonent bi doon te waa Makka bi da leen di déranger ci biir Makka bëggatuñ mu nekk fa. Sëñ waan nee ne bokk na ci muñ saat yonent bi ak ëkk goo xam ne daroon jooy di xaaju ngir lan yonent bi moo daan taxaw ci kawam léegi nag taxawatul ci ngir dañ ko defal bar loolu moo tax muy jooy yonent bi tànn loo ko ñaar yooyu ma la nett loo léegi moom nga dégg sëñ Tuubaa mu ngi koy nettali ca Amar Suleymaana lan la sëñ Tuubaa ni ne la ko waral min sawqin wa min asafin ngir sopp gi mu soppoon yonent bi taxaw gam daan taxaw ci kawam waaye jooy gi la ko waral mooy naqarlu lan mooy tax yonent bi taxawul sama pourquoi lan moo tax yonent bi taxawtul sama kaw loolu rek a tax si ëkk gi di jooy bokk loolu kese moo tax muy jooy jooyin wi nag borom xam-xam da jàmm wutee dañ ne daroon jooy kenn wékkuwuy naññ ñeen ñi ne déedéet dafa mel ni gëlëm goo xam ne da maanaam dafa gisul doom ji nam koy jooyee di yërëmtulu noonu la mel waaye geen lu nekk waaye Sëñ Tuubaa moom dafa ni mu koy indee mooy dafa mel ni jigéen goo xam ne lum jur mu dellu maanaam jigéen goo xam ne tey boo ko fekkee rawatina jigéen goo xam ne maanaam fu ne jamono jee xam nga tey fu ne bu fekkee doom ju jur mu dellu dañ lay gaafal dañ naan moom kat moom rek lañ xamee lii ci kër gi moom rek lañ ko xamee moo tax yàlla ak bëri sutura maanaam lalaal dal woy njëkk ña yàlla da cee musal bari bari bari ci xeetu yonent bi sallallahu daan nga gis jigéen koo xam ne du du jur mukk lu dul dellu na doom ja dellu na waaye xoolal yàlla léegi nu mu defee sutura ci biir kër yi jigéen bu juree doom doom ji faatu day wéet naqar rekk ci lay dëkk naqar képp rawatina nag nit ñi di ko xas lu ne ñi di ko wax yàlla bu mu am sax ay ay wujji yoo xam ne dañuy am doom moom lu mu jur mu dellu dañ naan moom de nangam dafa ay gàff yàlla sax bul denc ab jëkkër mu faatu dañ naan kenn du la takk léegi moom la xaw mooy loolu moo tax mu ne xat xam na xay na gisoon na bii ëkku kañ solo ko ëkk mooy dattu tàndarma mooy bu wow ko is ngir mun taqilun aji toxalu la ànd wëlis ko yonent bi moo daan taxaw ci kawam te xutba léegi taxaw tut ci yonent bi nee na maam ëkki loolu rek lay jooy sëñ tubaa nee na jooy nag sëñ tubaa na jooy nag anii na sakala kenn jooyuk jigéen gu yara dal alati mooy ndaw si nga xam ne far daw naa wiitaayam ba ngir doom jum am mu dem ba nga xam ne léegi xel mi dem na nekkatul fa nee ne dafa mel ni wiitaayam ba uqturima alagees na ko mooy naqarees na ko maanaam ndaw si nga xam ne lu am rek mu dem kooku da koy naqaru da koy méttitlu sëñ Tuubaa nee naa daaw fil baxri qabla dayqi xaadimahu bima bihi saxsaxal ahsaana wal alama naa daahu woona yonent bi damirul xaatab gi day dellu ci jëmmi sëñ bi moom mooy ki woo yonent bi salaay sam fil baxri ci biir gi qabla dayqi lu jiitu xat-xat yi lu jiitu muy dugg ci biir xat-xat yi kan mu ne xaadimu woo aji liggéeyam ji sëñ Tuubaa nee na moo woo yonent bi ci biir géej gi moom mi koy liggéeyal laataa muy dugg ci biir xaqat yi kon xasida gi dafa mel ni sëriñ bi da ko ci biir géej gi buñ xoolee sax ci bëy di mujj yi dana gën a firndeel loolu ndax wax na ne mi ngi diyal mi ngi diyanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boobu mi ngi ci biir géej gi buñ xoolee buñ ci loolu day mel ni sëriñ bi dafa laalaat xasida gi ci biir géej gi te bëy bii ñu toll sax da koy firndeel ndax wax na ne naa jeytu rabbi bihi fil bahri saqidamin bihi li afdali maxluqin hu daaw sama dane diyante na ak sama borom ta boobu maa ngi ci biir géej gi di liggéey yonent bi sallallahu alayhi kon béy bi tam day tegtale loolu dane woo naa yonent bi te boobu maa ngi ci biir géej gi lu jiitu xat-xat yi kan moo ko woo mu ne man suñ bii di ko liggéeyal maa ko woo kon woo na yonent bi ngir di sàkku ci yonent bi mu dindal ko xeeti njàqare yépp ak métti ja laataa muy dugg ci biir xat-xat yi nga xam ne balay dugg ci biir xat-xat dugg ci biir làmbar na dugg ci gabon ci ilimaayum ya balaa mu ciy dugg daal nga xam ne fa mu jëm na ko wóor na ko bu yeggee fee nga xam ne fa la ko noonu jëmee dana fa mucc ci xat-xat yépp mu ne woonoo yonente bi nag maa ngi nii ci biir géej gi bala maa yegg ca xat-xat ya ñaan naa yonente bi salaay salaam mu dindil ma lépp luy jàqar ak métti moo tax mu ne naa daaxu woonoo yonente bi fil baax ci géej géej ci biir géej gi day dayqi lu jiitu xat-xat yi xaadimoo aji liggéeyam jii di wax ak yéen bi xam ne sax saxa dàq na bii ca woote woowu mu woo yónent bi al ansaana njàqare yi wala ak métti ja nee na woo gi mu woo yónent bi ngir bëgg mu xeetu la ko xam ne kat noonu ñu ngi ko yóbbu Gabon nee na ci biir wootam boobu ci la ko yónent bi xamal na ko fa nga jëm sa xel na dal lépp luy njàqare ak métti tàggoog na ak yow mu jàll rek commencé tàgg yónent bi nekk faahu birrun wa baxsun fiihima xoxida lil xitli wal hibbi joodun lil yamin hama ñëwaat na ca tibaax yi lu la ci xam-xamu balaax nee na kafaahu bi ci tedd nga ak na doy na ko birun baax lool te mën a joxe waaye wa bëx sun jàmbaar lool te mën a mbugale nee na xoxidaa miinees na ko fiihimaa ci biit ñaari loxom ya looluy kiltaa yedday hillaha sax yun tulaasimuhoo baslun wa baxsun liman laano wa man jaaro ku mu ci ñaari loxo yi am na jëf joo xam ne dafa tëqoog moom benn loxo bi muy ndeyjoor bi day joxe ñi ko gëm te topp ko waaye nag beneen loxo bi da càmmo be karawaas la ci ñi nga xam ne dañ ko weddi sallallahu alayhi wa nee na doy na yonent bi ci tedd nga rek ak kawe muy baax moo ko gënoon a def ñëpp rawatina nag waaye baaxam gi nag ci jullit ñi la jëmoon waaye nag loxob càmmooyam ba ak loxob nday joram ba ñaar yi ko miinee woon na ngeen xam ne daal loxob càmmooyam ba moom ci noon yi rek waaye loxob nday joram bi moom ña ko gëm topp ko rek ñoo ko mën a xam ñoo ko mën a xam waaye loxob càmm bi kala ko mën a wax mooy ka ko weddi moom ñam na ko moom ñam na ko moo tax mu ne kafaahu doy na yonent bi ci tedd nga ak kawe biirun ku baax la te mën a jox lool waaye wa bax sun akuk jàmbaar akuk mbugale xonxi daa mii nii son na ko fiihumaa ci biit ñaari loxo ya su ko defee nag biirun gi mooy dellu ci hibbi gi bax gi dellu ci lil xit li juudul lil yamini amma kon dang naan kafaahu doy na yonent bi rek ci tedd nga ak kawe biirun doon ku baax te mën a joxe kan lay jox wal hib bi ab soppeem mooy ki ko gëm te topp ko waaye wa baxsun aku mbugal ñeel kan lil xit li ñeel noon bi ko bañ nee na loolu nag xonxidaa mii nii sonn ko fii maa ci biir ñaari loxom ya ki nga xam ne daal da koo gëm sopp ko bëgg ko nee na loxom day jorom bi da koy jox rek da koy tabe rek di ko baaxee waaye ki ko bañ di ko sonnal ër bu ni nee na loxob càmmooy ba karwaas la ci moom waaye nee na xammaa maanaam joodun tab la xammaa goo xam ne dooteeku na li yémin ñeel nday jorom ndey jorom ba daal ñi ko tëqoog moom rek ñoo ko xam waaye ku tëqutoog yonent bi gëm ko topp ko man a ko xam nee na daal joodun tab la xamaa goo xam ne dana dotteeku lil yëmin ñeel ndey jor ba ndey jor ba daal moom rek di joxe moom daal amul xajjake seen saxaaba yi daal ñi ko gëm topp ko moom daleen di dott rek ndey jorom ba dafa mel ni dañ koo bindal dañ koo mooñaale ak man a joxe sallallahu alayhi wa sallam lu rafet la kafaahu doy na ko moom yonent bi biirun baax ci mën a joxe ba box sun waaye nag ak xay ak mbugal lil xit li ñeel noon bi ko bañ waaye nag biirun baax ga wala bi ñeel na soppe ba nee na xoox yi daa miinee sonn ko fii maa ci biit ñaari loxom yooyu waaye joodun tab la xamaa xam ne day dotti rek li yëmi ni ñeel day jorom ba loxom day jorom ba day joxe rek mu ne bax su si maali kaafa le mostas fi ayna bii kaana mun jalliyan durran wa man katama nee na bax su si maali xayu cam mooy wax kafaa fegal na al mustasfina way sàkkoo tiruhoo ñi bii ca moom fegal na leen lan maa la nga xam ne kaana nekk na mun jël yeen di aji feeñ ca loxo càmmoy ba duran ci ci ay lor waman katamaa ak li nëbbu ca loxo càmmoy ba ci ay lor ba tey nee na ñi nga xam ne dañoo ñëw ci keppaaru yonent bi sàkku yonent bi xettali leen nee na xam loxo càmmoy ba duñ ko xam la ca ko xam la ca nëbbu duñ ko xam ña koy xam mooy ña ko weddi ñooñu moom ñooy xam la feeñ ca loxo ba ak ak ak la nëbbu loxo parce que yàgg nañu daje yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu di leen karas moo tax ma ne bonso ci maali ayu càmmoy ba taru càmmoy ba mbuguluk càmmoy ba nee na kafaa moo fegal al mustasfihiina way sàkkoo tinuhoo ñu bii ci yonente bi ñi nga xam ne daal ñëw na ngir bëgg yonente bi tinuhu leen xettali leen ñu topp yoonu islaam nee na du duñu xam la nekk ca loxob càmmoñ ba moo xam la la fiiñ ca loxo ba la wala la ci nëbbu ndax wax wal jëli wax wal xafi la la Sëñ Tuubaa wax ca mawaay bu naafee moo tax ma ne kafaa moo fegal al mustafin way sàkkoo tinihoo ñi bii ci yonent bi maa la xam ne kaana nekk na mun jëleen di aji feeñ duran ci ay lor ca loxob càmmoyam ba waman katama ak la ca nëbbu ci ay lor yépp nee ñi ñëw ci yonent bi ngir sàkku mu tiniwu leen ñoom duñ ko xam càmmooy bi lu muy saf-saf lu doon karawaas karawaas ñooñu ma mën nañ koo xam ñooñu duñ ko xam de ñan ñoo koy xam mooy ñu ko weddi ñooñu rek ñoo xam karawaas càmmooy bi kon gis nga tibaax bi mu def tibaax bu rafet la wane ñi topp yonent bi duñ xam ak soxoram duñ xam ak manam mbugalam duñ xam lorom yim nëbbu ci loxob càmmooy ba duñ xam lorom yi nga xam ne moom la nëbbu ci loxob càmmooy ba ak yëm feeñal yëpp ci loxob càmmooyam ba waaye nag ñi nga xam ne ñoo gëm yonent bi topp ko ñoom la ñuy gis ci yonent bi rek mooy ku baax la ku tab la ñaaral dëgg déggu olof di wax sax nikki ki de sooy xool ci moom mbaax mbaax rek ngay gis ci moom même nit ki lu mu baax booy xool ci moom ak bon rek maam lu bon ngay gis ci moom kon jullit ñëpp lañ doon xool mooy ak mbaax rek te mbaax rek la doon jëflante ak ñoom waaye yéeféer ñi liñ gisoon ci yonent bi mooy ku bon la moo tax lu bon rek lay buñ ñëwee ci yonent bi itam loolu rek lañ fi fekk loxob càmmoñ loxob bu ma raw mu ne naa daa woona nag alqadimu aji liggéeyalam ji kan la woo mu ne ibna abdillahi dañoo dagg muhammad gi kan la woo ibna abdallahi muhammad ibna abdullah doomi abdullahi ji ndax abdullahi mooy woy juróom fii maradin fekk boobu mi ngi ci biir tawat waaye yonent bi wa saxaha wéral na alqalba xol ba wal jusmaan ak yaram wa wal himama ak hitteem yi bëggoon yépp yonent bi defal na ko mu ne sëriñ bii di liggal yonent bu jublu ci moom sëriñ bi nee na moo woo jëmmi yonent bii di doomi Abdallah waaye moom sëriñ bi nee na bi may woo yonent bi dafa nekk ci biir tawat tawat gi nag waxoon daal rek mooy tawtug baatin waaye du tawtug jëmm mooy tawtug baatin moo tax gis nga lam ci njëkk wax mooy xool bu tawat kon xol day tawat nee na lu yonent bi njëkk wéral mooy jëmmi xolam wéral jëmmi yaramam ba nga xam ne dootu tawatati waaye yitte yi mu bëggoon yëpp du am benn yitte ci yàlla wala yonente mu càng kooku mooy himmama nga xam ne kon yonente wéral na ay yitteem banga nga xam ne lu mu bëgg ci yàlla bëgg ko ci yonente bi du càng mukk moo tax ne naa daa woona alqadimu aji liggéeylam ji kan la woo mu ne ibna abdillahi doomi abdillahi ji te mu yonente bi ba mu koy woo sëñ Tuubaa ba ngay woo yonente bi ci loo nekkoon mu ne fii mar den ci biir tawat maa ngi tawat tawatu baatin moom yonent bi lan loola defal ba nga ko woowee ndax fajal na la sa tawadi mu ne wasahaha wéeral na alxalba xol ba wal jusmaana ak jëmm ja wala himma ak yitteem ya du am benn yitti fa yàlla lu suñu borom subhanahu defal na ko mu ne wal biiru faarat isil muxtaaru majjalaha wal maau xadd saara mislal mawji mun ne wal biiru faarat isil muxtaaru majjalaha wal maau xadd saara mislal mawji mun salima mu commencé indiwaat beneen muxjisaat ci muxjisaat yonent bi salaay salaam mu ne wal biiru cosaan la nag moo doon biiru wal biiru temba nee na faarat fuur na ba fees tepp isil muxtaaru ba nga xamee ne ka ñu tànn ko te mooy yonent bi majja yàbbi na aw lorom laxaa ca kaw teen ba nee na wal maa u ndoxam teen ba xat saara mujj na mun sa jimaa di aji yol mislal maw ji képp duusu géej sallallahu alayhi wa sallam tey loolu muxjisaat la ci muxjisaatu yonent bi salaay salaam teen boo xam ne bu xuut la te yaatu lool dañ koo gasoon waa màkk yi gas ba sonn ta war nañee jàpp ne moos war nañu mën a jot ndox war nañu mën a jot ndox waaye saa yuñ desee rek ba jàpp ne suba danañ jot ndox duñ jot ndox mukk ñu jàmbat ko yonent bi salaay salaam mu ne indil leen ma am ndox tuuti ñu jox ko ndox mu ñaan ci lam ci ñaan tëfli ca ne yóbbu leen sotti ko ca teen ba rek booba teen ba amul ndox bënut defu dara teen boo xam ne bënut gaa ñi dem sotti ca rek maanaam ñi gis ne ndox mi dafa fees dell dell dell dell fuur ci kaw teen ba ba nga xam ne léegi teen lañ baaxoo woon xam da ngay yóbbu sa goj yóbbu sa baag nga wëgg waaye teen ba léegi dootoo def noon dangay dem rek tànk même boo bëggoon a jàpp sax da dem tànk te ndox mu neex la yor jàngoo ko ca jàngoo ko ca mooy mawaahibu naafi wa dab euh, sabyun yu kallim dabun yu yu asim kasi daxaay waaye sarxun tasiiru xaysun jafoor mu ne biirun tafooru teen boo xam ne dafa fees tepp bilaarisaay ci lu goj nga xam ne léegi doo dootoo demeti mukk li ñuy def ci yeneen teeni nga di ko def dem di wëgg di soon déedéet da ngay dem rek tànk sallallahu alayhi wa sallam am na teen boo xam ne itam dafa safoon xorom weex xat ba kenn mënu ko jëfandikoo ngir weexaay ga kenn mënu ko naan ndox ma ñu jàmbar ko yonent bi yonent bi ñaan tëfli ci rek ndox ma mujj neex bañ man ko jëfandikoo sallallahu alayhi wa sallam waaye bii moom lim ci jublu mooy teen boo makk doon gas ba noppi ba noppi mëntu génn ndox ñu jox yonent bi tuuti ndox mu ñaan la muy ñaan tëfli ca ñu sotti ko ca teen ba teen ba fuur fees dell ba nga xam ne kenn dootul ti bàkk ak goj léegi da ngay dem rek tànk moo tax suñu tubaan wal biiru teen bokk na ci mujj saatam faaraat boo xam ne fuur na ba fees tàpp kenn dootul ti goj ak baag di wëgg isil muxtaaro ba nga xamee ne kañu tànn ko tama yonent bi majja yàbbiti na aw lorom yàbbi na aw lorom laxaa tëfli ko ci kaw teen ba maanaam dafa tëfli rek ñaan rek tëfli rek teen ba a tabarakallah fees dell ak ndox moo tax suñu tubaab ne wala maa ndox ma bi yonent bi defee loolu xat saara mujj na mun sa jimaa di aj yool mislal maw ji kenn duusu géej mu ngi mel ni géej ay bu feesee dell ay waggam yi nañu duuroo noonu la teen bi mel mu jàllaat ci beneen muxjisaan wa jaa alil muntaxa sabyun yukallimuhu wa dabbu kallamuhu taklima man fahima nee na a dana wax ak lil muntaxa ñeel ko ñu tànn ka wa dabbu ak mbëtt ba tey kallamuhoo waxee waxan waxante naak yonent bi takk lii ma man kenn waxante koo xam ne fahima dafa dégg ñoom ñaar lu ñuy wax kenn ku nekk maanaam da ngaa dégg lu sa morom bokkul ci ay muñsaatam ak kiwéel guy wax ak yonent bi kiwéel gi mooy lan dafa am kiwéel goo xam ne ay sàmm dañ ko jàppoon yeew ko dem bàyyi ko ci gajj bi te kiwéel gi dafa doon kiwéel goo xam ne dafa am ay doom bàyyi leen ca dëkk ba ñoom nag ñi jàpp ko ay rëbbukat la rek dañ koo bëggoon a fa tabaarakallaahu faat léegi nag bi ñu ko fi yeewee jëmmi kéwél gi nag bàyyi na doom ca dëkk ba te léegi weeni joox na mi ngi leen bëgg a nàmpal te xam jur bu juree doom ni muy bëgg a gisanteeg doom yi du maanaam du bëgg ñuy sëriwante mukk sàmm yeew ko fa nag dem bàyyi ko ci àll ba yonent bi jaar fi rek kéwél gu joor ko na ko eh yow bi yàlla bi yonent bi nag gees dem wuyu kéwél ga kéwél gu na ko yow yonentu bi yàlla bi man de ay sàmm ñoo ma jàpp ba noppi yeew ma fii dem bàyyi ma fi léegi damaa bëggoon nga yeewu ma yow mu yàlla yónni damaa am ñaari doom ci dëkk ba su ko defee ma dem nampal leen bu ma leen ba noppi danaa ñëw ba noppi nga yeewaat ma yónni ko ah yow moom yi lu jàmboon parce que dañ la fay xaw ma nu demee dañ la fi yeew mu ne ko waaw dëgg la dañ ma fi yeew waaye gëñal naa la ci yàlla mi la yónni boo ma yeewee danaa nampal samay doom dellu dellusiwaat nga yeewaat ma yónent bi na yaa ko wax de teewul gu na ko waaw yónent na bisimilah yeewi ko. kéwel ga cortu cortu daw ba yegg ca daw mi nampal leen ba nëppi te boobu ween yaa ngi joox mu nampal leen dellu del si waat ci gajj bi yonent bi jàppaat ko yewaat ko ngir lan bañ nay wor maanaam kóllëre gi mu seqoog bi te dane ko danaa dem nampal sama doom yi ñëwaat léegi nag mu ñëwaat yonent bi yeew ko yonent bi mu ko yeewee nag bay dem seeni borom dajeeg ñoom yonent bi ne yéen a moom kéwél gu ñu ne ko waaw yonent bi salaay salaam da di laaj leen lan ngeen di defee kéwél ga ñu waxal ko ko yonent bi salaay salaam daal di jël jënd ci ñoom kéwél gi ba noppi lii bari jëmmi kéwél gi mu dem kon waxante nag yonent bi salaay salaam gi mooy dane ko yeewi ma ma dem nàmpal sama doom su ma ñëwee nga yeewaat bu loolu mooy waxante gi tax mu ne bokk na ci ay muñ saatam kéwél goo xam ne dafa dikk di wax ak yonent bi alayhi salaam waaye nag mbëtt ab sàmm arab boo xam ne dafa jàppoon am mbëtt ngir bëgg koo lan wàjj ngir lan liggéey ngeen di bëgg xam nga rëbb mbëtt moom miin nañ ko defe naa ne bëgg bu demee rek wisim ko daggat daggate ko togg ko lekk ndax bëtt moom def naa rab bu neex la léegi nag muy sàmm ba yàgg mu seen saxaaba yi yonent baa ngi ci biir di leen jàngal am ojaat mi def ak ñoom mu ne ñeema seen am na lu ñuy def mu dal di gàddu mbëttoom ñëw ba ci gaañi fi ñu toog hadis bi Ibn Omar moo koy nettali nee bi sàmm bi fekkee yonent bi mi ngi waar saxaaba yi ñi ngi ko wër Omar ibnu Xataab ak Aboubacrine ñëpp ñi ngi ko wër ak ñeneen ña fa nekkoon saxaaba yi waa ji dal di gëñ ne yow mii toog ci biit nit ñi gëñ naa ci laat ak xusa muy xërëm lañ ci màkk maanaam ni ma la bañee maanaam jant tiimul maanaam ni ma la bañee maanaam jant tiimul maanaam ni ma la maanaam koo xam ne bañee ko maanaam daal ñi jant de tiim ñëpp bët bu set yow laa ci gën a bañ bi mu waxee loolu Omar ibnu Xataab sax bëgg naa jóg attaqué ko yonent bi na ko toogal xomar kanaa xamoo ne maanaam ku lewet daanaka maanaam dafa yor jikko yonentu ndax xadis wax na ne kaadal xalima an yakuna nabiyyan maanaam ki lewet dafa mel ni maanaam tuuti ko na mu doon ab yonentu ndax yonentu bokk na ci ay mbiram mooy lewet day nekk ak jikkoom moo tax yonent yëpp dañoo lewatoon xomar dafa bëggoon a attaqué waa ji ngir lu mu wax yonent bi yonent na ko waaw yow kanaa soo ma fekkee ci biir nit ñi sax nga war may wax wax ju teggi ne waaye nga di ma wax nga di ma wax wax ju wax ju ñàkk teggin ji ah mu ne ko man ngay wax loolu sàmm bi ne ko mën ngay wax lool xamal ne du ma la gëm mukk lu dul bëtt mii moo la seedal maanaam sëg yónentu yónentu bi ci bopp moo laaj mbëtt mi na ko kan ngay jaamu mu ne ko yàlla bi borom bi defi ne kan mooy yónent bi mu ne ko yow mbëtt bi man may kan mu ne ko yow yaay ndawal yàlla muy borom bi defi yaa dëpp yaa dëpp man ana mu ne ko anta rasul rabbil alamin yow mbëtt mi maanaam man may kan mbëtt mi lam ko delloo tontu moo na ko yow yaay yonentub yàlla bi borom bi def nee sàmm bi ci la ci la daal di dugg ci lislaam am na yeneen riwaay yuy wax ne nag maanaam daane lii njabar la gëmut ko waaye li gën a wéer mooy dugg na ci lislaam moo tax suñ tubaab nee na wa jaa a dikk na sabyun ak kewel yu kallimuhu goog dana waxanteeg lil muntaxaa ñeel ka ñu tànn ka wa dabbu ak mbëtt moo xam ne kallamuhu waxante na ak yonent bi takk lii ma man kem waxanteeg koo xam ne fahimaa dégg na maanaam comme ñaar ñu dégg olof ni ñuy waxante la ngay mën a wax sa mbokkam olof mu mën laa réponse tontu la ci tontu wu leer maanaam bëtt beeg yonent bi noonu lañ doon waxante waxante wu leer ba tey mu ne lil Moustapha sajadat zarhun muassamatun lahu ba'irun li durrin istaka alama nee na sajadat sajadat sujootal na lil Moustapha ñeel ka ñu tànn ka zarhun ndaññaamal garab muassama garab gu rëy maanaam ñu ne sarxun mooy garab goo xam ne gu rëy rëy la ndax ñaamal garab lañ koy wax nee na ba tey bokk na ci ay muñu saatam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay yiifér mën nañ ko mën nañ koo gaarlu na ko yow li ngay woote dara amut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen man yàlla mooy ki ma yónni yonentu bi yàlla laa ñu ne ko sa yonent gi de duñ la gëm mukk lurut ñaari garab yee dang leen woo ñi ñëw déplacé fee ñu nekk di dox par ndànk di dox par ndànk di dox par ndànk ba yegg si fii loolu tey boo ko defee mën nañ lay gëm yonent bi na leen ndax bu mu ko defee da ngeen gëm ñu ne ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di woo garab yi ñaari garab yëpp ñiy dox ak seen peer di rëdd di ñëw rëdd wu rafet ba yegg si yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di yebalaat garab yi ñi dellu fa ñu nekkoon samp fa ci lañ eh, ci lañ ñooñu dal di dugg ci lislaam mu ne loolu bokk na ci mujjisaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne sajjadaat su jootal na lil Mustafa ñeel ka ñu tànn ka zarxun ndañjaamal garab yi muassamatun yada yu ñu rëyal mooy garab yoo xam ne seen datt yi day rëy nga xam ne bu ñuy rëdd dañuy rëdd ni ñuy rëddee na muy rafetee noonu lay nirole maanaam zarhun mu asamatun maanaam ndax ñaamal garab mooy garab yu rëy yu dijj mu ne loxo tey loxoo ñeel na ko euh, baxirun ak gëlëm isteka goo xam ne jàmbat na li duri ñeel lor alama goo xam ne méttal na ko ba tey lii beneen mu moom lay junj yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ne jaabir amoon na gëlëm goo xam ne da ko daan xont xont ñu baax waaye di ko sëf itam sëfin wu diis jaabir dem ba jibbi jamono nag léegi dafa wàcc dafa wàññi jëmi xont ma ba noppi di yokk sëf ga loolu moo xam naa ne métti na léegi nag loolu métti na gëlëm gi gëlëm gi waaxu ba ci yonent saa sam na ko waxal kii nga xam ne moom moom te mooy jaabir moom kat lam ma daan xonti da ko wàññi ba noppi di yokk sëf ah yonent bi woo jaabir na ko ah sa gëlëm gi kat ñëw na fi am lu may jàmbat daal di waxal ko du mbir ya demee yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam sax moo jënd gëlëm nga ci jaabir ba noppi kerek la ko nit gëj a war kerek la nit maanaam gëj a war jëmmi gëlëm ga amul kenn ku ko mos a war am na benn bis itam ñaari saxaaba di xëccoo kii na maa moom gëlëm gi kii naan maa ko moom fekk dafa am koo xam ne dafa jëloon gëlëm ak jàmbur ñi koy xëccoo na ba yegg si yonent bi gëlëm gi ci boppam mu daal di leeral ku ko moom moom daal di ne kii moo ma jël te kii moo moom kon loolu bokk na ci muñ saar yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax sëriñ bi ne sajjada su joota na lil Mustafa zarxun ndaññaamal garab yi muhassamatun yeddi yu ñu rëyal muy garab yu dijj yi te rëy loxoo ñeel na ko baxayrun gëlëm ah istaka goo xam ne jàmbat na li durul ñeel lor alama goo xam ne mittal na ko gëlëm goo xam ne dañ ko doon sëf lu diis da ko jàmbat yonent bi yonent fajal ko ko moo tax mu ne loxoo ñeel na ko moom yonent bi bokk na ci ay muy ah, na li durul ñeel lor alama goo xam na ko ay méttit ka annahu lam yulaaqi xubsan aw saqama sala alayhi lati fi lxalqi sawaduhu fi l aali man joodi kullin yuxjilu diyama léegi nag sëñ Tuubaa def xusnul iltifaat ci boppam moog yonent bi laxoo ñeel na ko ilti iltaja ak wiidu xablu ci lu jiitu mubdi mbir moom muy aji feeñal sukkur yi ak cantam waxadaate mujj na ka annoo ba mel ni moom sëriñ bii di wax lam ñu laaqi moftu daje xubsan benn bon bon aw saqma wala rag-rag sëñ Tuubaa boppam lay waxat mu ne ne yonente bi noonu la doon wax ak kéwél ga waaye noonu la wooyoon garab yi waaye noonu la woon gëlëm gi doon dem ci moom di ko jàmbat nee na sëriñ bi moom it dafa amoon njàqare yu ko daloon mu wéedu ci yonente bi salaay salaam sant ko nee na yonente bi ci la ko teggil njàqare yooyu yëpp ba mel ni moom sëriñ bi mostu dajee benn rag-rag te dafa tawatoon te ci yu bon yi rek la nekk waaye tawat nangutu am benn caf kay jaamu suñu borom waaye ba mu wéedu ci yonente bi rek gis na loolu yëpp tàggoot moo tax boppam la ci jublu moo tax ne loxoo ñeel na ko moom sëriñ bi loxoo ñeel na ko iltijaa ak wéedu ca yonent ba xablu ci lu jiitu ba laataa muy ci tukki ba daf wéedoon ci yonent ba waaye mub di mbir moom muy aji fiiñal sukkur ji nekk muy cant yonent bi salaa salaam ci xéwal yi mu koy defal ci wéedu gu ci moom nee na moom sëriñ na ka annoo ba mel ni moom sëriñ bi lam yu laaqi mostu daje xutsan benn bon bon ko ci lépp luy bon bon ak ràgg ngir wéedu ko dotti ay xéwal ba noppi muy feeñal ak cant jëmee ci yonent bi alayhi salaam mu ne mi nga xam ne sawadohoo moo sangal yonent bi fil xalq ci bit mi dee fi fil ali salaatu gi na ñëw ba biit mooy ña nga xam ne joodu kullin tabee képp ci ñoom yuux ji lu gàcc na diyema ak dët muy taw boo xam ne day sottee ko bañ a mu ne yàlla na ci yonent bi yàlla mi nga xam ne moo sangal yonent bi mu doon sangi mbindeef yëpp ñëpp mooy seen sanga waaye salaat gi na ñëw ba waa këram mooy ñi xam ne da tagg ñoom ñëpp kenn ku nekk dafa tabewoon kenn ku nekk tabe ga nga tabewoon gàccal na maanaam taw boo xam ne day taw ba ci sabati kenn kenn ku nekk ci ñoom kenn ku nekk ci ñoom maanaam kenn ku nekk ci ñoom da leen na man mooy ñi nga xam ne man góodu kullin yux julu diyema nga xam ne kenn ku nekk yaa gën a tabe sax taw boo xam ne day taw bañ bañ a bàyyi maraman sala yàlla julli ali ci yonent bi ali si yàlla mi nga xam ne sa wa doxoo moo ko sangal fil xalqi ci biir mbindeef yi fil ali ànd koog ñoñ ña man mooy ña nga xam ne ñoom waa këram ña aajoodu kullin tabe képp ci ñoom yux julu gàcc na di yema ak dët muy taw boo xam ne day sotteeku bañ